mais ñun ñu ñëpp na may gars yi ñu ñëpp ah jëlaat ja jàppale. na baax na. léegi na. baax na. Anaconda ba ci démb dafa def open press bu ñuy wax ñëpp dañuy dégg wax li a may nag dama bëgg tey ngeen def lu kenn mës ko gis ci làmb mooy ngeen may kese mu firi mu wax ak àdduna bi koy seetaan mu wax ci combat capital bi mu jëm diggante ak Anaconda maa leen koy ñaan yéen ñëpp ngeen xam ne presse bii ñoo waral Marley woote lii te pour message u Marley jàll faw yéen ñëpp ngeen may ko tranquillité mu mën a tontu Anaconda ndax li Anaconda wax yëpp mu ngi ci nopp Marley ñu ngi jégalu bu baax sama gars yi dégg ngeen la presse bu baaxee rek ñu dem c'est bon jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant bu ñu nee 24 novembre sa xel day dem ci bis bu rëy boo xamante ni jàmbaar production moo ko organisé ci arène nationale yaakaar naa ne mu nekk combat royal Siteu ak le roi des arènes Modou fas yéene cee bëre waaye amateur yi dañu ne dañoo am combat boo xamante ne bu ñu ko yóbbu woon ba fongale mi ñu dem seetaani ko ndax diggante maar 2 ak ki nga xamante ne mooy Anaconda ndax ku ci nekk boo jugee mbooloo mu bari dañ lay topp yaakaar naa ne ba ma demee parcelle li ma fa gisoon ci mbooloo bi ma ñëwee géejawaay li ma fa gis ci mbooloo ñii bu ñu ñëwee stade ragal naa ne Modou ak Siteu <laughs> seeli supporter ci écran géant yi lañ koy seetaane maar la ngay bëre xale boo xamante ni yaakaar naa ne wax na ko waxati ko waxati ko nee na daa bëreeg numéro 7 mu daan ko mu jël 10 pour fas yéene rectifier li nga xamante ni mooy erreur am gëm na ni bu arbitre ne prime bu la jàppee làmb ji jeex te ñeme woo taxaw xeex ak moom ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu weel waxtaan bi maar la deux waaw onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginaaw bi ñu sante yàlla julli si bi di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax di wax jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba di nuyu waa géejawaay yëpp di nuyu waa géejawaay yëpp bopp di jiital suñu grand liiru diane monument géejawaay ñu ngi koy nuyu bu baax a baax baax diko wax ne gis nañ ci si way ñi ngi rafetlu taxawayam di sant mbëru way yëpp nak muy ku tew ak ku tew ndax bu kenn ñëwee rek yaakar na ne ñëpp ñëw nañ kon maa ngi way waaw di bëggé nak suma wa école de ku si mel école de Lansane école de lutte waaw di nuyu xam nga ñi ngi fi fekk ni nga xamantene awma seen fay muy supporter yi di leen bëggé bu baaxa baax di leen nuyu yeen journaliste yi tamit ah, parce que tamit xam nga waaw sen temps def ngeen ko di nuyu tamit xam nga waaw waa commissaire a waqi naan nimsaat gis naa taxawaay bi xam nga gis naa taxaw bu baax a baax daal xam nga commissaire bi maa ngi koy siyaare bu baax a baax commandant bi xam nga adjudant Diallo adjudant Ba kontaan naa si ñoom bu baax adjudant Thiam parce que gis naa taxawaay bi daal maa leen di remercier di remercier waa commissaire a waqi naan nimsaat bi yëpp jërëjëf combat bi yaakaar naa ni combat bu nar a metti la ci yéen ñaar ndax ku ci nekk ci défaite la jóge Marley nan lay préparer combat bi rawatina géejawaay gépp buux la ànd nekk sa ginnaaw. waaw Marley nu muy préparé combat bi yaakaar naa képp kuy supporteru Marley gis na ko képp kuy supporteru Marley xam na coono yi Marley daj ngir lan waajal la 24 te comme li may wax rek la 24 bis la mais li ñu tax a jug dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li nekk suñu kanam muy suñu carrière mais du la 24 la 24 nag lu ma war a jaar jàll la si kàttanu suñu borom mais li ma tax a jug dëgg man. li nga xamantene moma yëkëti moy li nekk suma kanam nekk suma carrière parce que dafa am ño xamantene ni xam nga dañ mako ko dañ mako ko dañ mako koo ji daal kon faama delo delloo leen njukkal di nuyu ku su melni grand pape Gueye bu état du jala grand pape Gueye ini ngi koy nuyu bu baax di siar bu baax di wax ne lepp lu mën rek yalla mën lu ko raw dal di gëreum gambien xam nga di gëreul gom yombul tisi quoi tamit wa may ngi bëggee ñëpp daal balaa ngaa gërëm Babacar wax deug la da ngay ñëw ci combat bi Anaconda nee na dafa bëre set euh, mu daan ko mu fas yéene jël dix pour fas yéene erreur rectifier erreur ay waay bi mu amoon ci sept lan ngay wax ci lool waaw xam nga comme ni mu ko waxee rek dafa bëreeg sept sept bi ko mu ñëw jël numéro dix loolu la wax mais dama ne ko la Saint Aboua la caravane passe ah, coow li mooy xala bari waaye dix du ray aas yaa may dégg bu man. waaw man man aas bu ñuul kuku laa. aasu pikk laa koy indil aas bu ñuul kuku comprendre waaw la 24 daal waaj naa ko comme ni ma ko war a waajee ak sumay supporter ak ñi may àndal. Babacar dégg li mu wax nee na aas bu ñuul kuku la waaye Anaconda yamul foofu daf na képp ku ànd ak moom mu ngi lay ñaan nga joxal ko Marley de respect bi mu laaj ci TikTok bi. ci internet bi ci fépp foo xamante ne plateforme la nit ñi di ko seetaan ci diggu géew bi respect bi la ay supporter am jox moom mu teggi ko teg fee duma la daan la lu la mbër musta def. waaw loolu dama koy rafetlu parce que ku joxewul cër rek doo am cër doomu aadama bu nekk da ngay joxe cër. Mboy maa ngi lay remercier bu baax a baax waaw merci beaucoup yow ñoo far amin yaa rabbal alamin amin amin amin amin waay amin waay amin amin yaa ngi dégg bu baax waaw Mboy maa ngi koy remercier li rafet na quoi kontaana bu baax a baax mais comme li may wax rek li mu wax noonu dama ko si remercier bu baax parce que sport la jarul rayante jarul waxante lu ñaaw jarul dara fan si dañoo xër rek moo tax ñuy waxante yenn yi mais kenn ku si nekk xam na ne la 24 man ak Anaconda dinañ xeex dinañ bëre parce que loolu la ñu amateurs yi soxlaa loolu la ñu supporters yi soxlaa combat boo xamante ne nii suma baxan bii laa si teg. yebuma sax ñi may supporter ba ma war a jàkkaarloo ak Anaconda di taxaw ak moom ci 2 minutes bu arbitre bi soufflé si kattanu suñu borom ma duma ko daan ko. macha allah Babacar waaw Marley temut. booy du déglu de booy. ça va rek booy wax na yaakaar naa li wax mais dafa am loo xamante ni Anaconda ko des. Anaconda nee dama dugg kër seen kër. daan fa réparé. moom mu war a jël si bor li nga xam ne mooy revanche bi. te yaakaar naa ne fi mu jël si revanche bi baaxul. ñu bëri ne Marley fii du yoonu làmbam nga génn si mbéyku gi jël ki nga xamante ni mooy anaconda soit bi la ma ko waral da nga jàpp ni da nga war a jaar si anaconda pour rep rep eh, jëlaat sa place ci lamb wala nga jàpp ni anaconda moo gën a yomb si lamb ji waaw baat boobu bi mu ko waxee ne dafa bëree ak suma rakk daan ko dama ko koo nangul waaye dama ne ko doy ni papa taxul lu papa mën nga mën ko loolu nangul naa ko ko dafa daan sama rakk mais doy ni papa taxul lu papa mën nga mën ko ko te le 24 laa koy woon incha allah hmm. waaw parcelle man dama fa daan 6 mbër comprendre nga parcelle dama fa daan Pape Cambouren daan fa Laay Pythagore dan fa Ousa 2 daan fa Tafatine 2 daan fa Giri Junior daan fa Mamadi muy six personnes li nga def parcelle est-ce que moom li mu def fayul li nga def parcelle yëpp ndax moom sa biir kër la dugg nga ngemb sa rakk indi ko mu jàpp ko daan ko jël bu amul benn werante damaa yaakaar carrière bi nga def noonu yëpp biir parcelle benn victoire Anaconda boobu est-ce que effacé wu ko. waaw foofu xam nga tontu naa leen fa léegi nii wax nga wax ji tontu naa la ko tontu waxaat nga ko tontu nga sa bopp mooy maanaam doy ni papa taxul lu papa nga mën ko loolu la 24 laa koy woon loolu pare naa si. le 24. le 24 si kàttanu yàlla. lay xam ne man ak réparé du ñu benn. réparé champion la suma rakk la mais la 24 dinaa ko ne ko. lépp dëgg la incha allah. waaw Alba yi ñu ngi nuyu yéen ñëpp di leen bëggee. di leen kontaanee bu baax a baax. Marley maa ngi lay nuyu bu baax di la bëggee. mais Djily dama bëgg ñu ñëw ci enjeu combat bi. parce que combat bi am na enjeu bu mu am. Mhm. enjeu bi combat bi am mooy dama gis géejawaay benn détermination bi ñu am. Mhm. muy fuggu. ak ni ñu jëlee combat bi Marley ñu gis ko ci kombaa bi mu jël ay engagement am ku wax mu ne la combat bi sama combat la maa ko jëlal sama bopp tey combat bi fi mu toll waa Géejawaay est-ce que liñ na Marley warul jël Anaconda wala Marley warul bëre ak Anaconda est loolu moo waral engouement bi ak détermination bi nga am merci Fallou dëgg la Anaconda maa ko raw si làmb fuuf li ma def si làmb xaaj ba xaajaat ba def ko si làmb champion yi ma bëreel bëriwut ak ñoom làmb moo tollootul ay maa raw wala diw mooma dañuy liggéey xam nga nekk ay soutien de famille bu ñu gisee loo xamante ne gënal nañu ñu jël ko làmb ji taxaw na mais làmb coow la ku xam làmb Marley Anaconda xam ne làmb la joo xamante ne ñëpp a ngi koy xaar làmb coow la champion la nag man nangul ko champion mu nekk booy boo xamante ne ni bu am détermination la comprendre nga mu nekk booy boo xamante ne lépp lu muy wax lu nekk gëm na ko moo tax ma gëm ne la 24 man ak moom du ñu yàgg hmm. parce que incha allahu rabi bu arbitre sifflé dox daje incha allah mais ñu gis ni baa jili benn question ñu gis ni. Mhm. dañ ko gisoon mu xaw a am nu mu toll. waaw démb bi ko gisee open presse bi mu mel ne xaw na wàññi poids bi mu jëloon gis na woon dafa ñëw pour bëree Marley à deux waaw loolu daf may neex xam nga tay man préparation moom moo ko xam man li ma pare rek laa xam ak suma kër su ji bi comprendre nga ak ñoom booy caam xam nga ñoom Ibaak Seex Caam Bas man ñooñu liñ ma pare laa xam mais moom li mu arrangé li ko arrangé rek loolu lay def. bu ko neexee moom nu ko neex na toll nu ko neex na mel mais licenciaire la 24 maa ko fa am man maa ko moom. waaw mais ji Badou Ndiéli. Badou Ndiéli la 24 excès de confiance bi ndax contre mbay guy gi. waaw bi la ñàkkuloo combat ba excès de confiance da say da say joué. waaw contre mbay guy gi li may wax. samay supporters ñoom ñoo ma ko gën a xam kontur mbay guy gi su may supporters xam na ne man du ma cent pour cent si wàllu entraînement ak si yeneen parce que dafa am lu tax comprendre nga hmm. mais dama ne la combat bi dama nek au top ah. hmm. amul lenn lo xamantene ni xam nga suñu borom sutural na ma ci ba ah. waw ma ngi sante yalla bu baax ta la 24 ci carton suñu borom la koy woné waw hmm. de ay mu ngi mar léegi ginnaaw ba nuyu. ni bu kese muy combat waaye dañ laa dugal si combat royal nga war a bëre combat spécial sa diggante ak Anaconda ñu gis physique bi nga indi indi woo ko woon dëgg la contre mbay góor gi yaa koy wax léegi waaye Fallou moom it wax na ko léegi léegi dañoo gis Anaconda ak benn poids man la fan nga teg loolu ndax Atlantique bi mu ngi ci biir ak fan nga teg doo bëre ak Anaconda deux minutes muy xale nga jiitu ko si làmb. waaw dégg naa la bu baax a baax muy xale ma jiitu ko si làmb fi ma teg ne du ma bëri ak moom dix minutes deux minutes boog dama wees dama liggéey loo xamante ne du pour Anaconda merci te dafa nekk loo xamante man ak Anaconda du ñu benn si làmb mm-hmm. wallaahi du ñu benn ndaanaan la mën na bëre mais dama ko supérieur barke Serigne Saliou Mbacke laa lay wax marle bu pare mbër buy takk ngemb bu taxawee ak yow nga xam ne lépp dëgg la. da nga ko supérieur jël ko. waaw mais yow lamb tollootul foofu. lamb tollootul foofu. combat yi taxaw yëpp bi bi ne eh, diw diw taxaw na surprise la dikkee muy combat yëpp waa léegi ay lamb surprise rek mooy taxaw mais nag li nga li li li ëpp li am solo daal mooy xam nga. le 24 mooy dañoo lekk xaalisu jàmbur waa jàmbaar dañ ñuy xaar xaar bi ñuy xaar mooy ñu ñëw indi ay supporters comprendre nga ñëw waral leen ko xam nga a mardi daal di ci anaconda. nit a mën a ci la dafa wàcc gesu ñëw may ko sens pour mu àgg moom. lamb léegi néew tuuti léegi. victoire néew tuuti ak kii lamb léegi xaalis a ñu moom mais du palmarès du lamb. xaalis ba sëñ Bamba. xaalis ñu boole. merci Abou maa lay nuyu bu baax di la siyaar mooy comme li ma wax rek xaalis la làmb la parce que ku ñu fayul doo bëre fay bin ñu fay moo tax ñu bëre ak moom mais li ëpp solo daal ba ëpp solo mooy. la 24 incha allahu rabbi man maa ko fa am. samay supporter ñoko fa am fépp ci côté yépp Baay Faal boo muy wax gaan. lu ñu la bu baax a baax a baax a baax loolu maa ko waaw di di di di di di bëggé walé sama gaay rek ku ci melni Tafaya Douane maa koy sant bu baax di ko gërëm ku ci melni bay Baye As Douane maa koy sant bu baaxa a baax a di ko gërëm Badara suma dom mi ngi ba marok maa ngi koy gëreum alsan Mbimi xam nga Lamine nar mën nañoo xaar arbitre na prip maar la buur wutali ki nga xamante ne mooy Anaconda xeex ak moom jàpp ko daan ko ay supporteram ñibbi mën nañoo xaar loolu. déggoo li ma la wax xanaa dama ne la. je taag je koñ je gañ. ñaata minute. bu arbitre bi tegee loxoom ci suñu diggante man ak moom ma dox ci du ma ko daan ko ci kàttanu suñu borom. bu doxee sa kaw. xaaruma ko muy dox ci suma kaw man man maay dox ci kawam du ma ko daan ko. bu taxawee déglu la. déggoo ma la wax dama ne la. xam nga dama dégg nga nga laaj ko nga ne ko ci open press nga ne ko marlé ñu ko woo si bëri ñëpp xaw ma dañoo mujj xaar affaire yooyu noonu mais dama la xamal ne la man ñi ma dajanteel ñuy ay xeexkat bi ma ak ñoom dañoo taxaw xaar. yaa may dégg bu baax ñi gën a agressif si lamb ji ma dajante ak ñoom bi ma tajee ak ñoom dañoo jël xeex bi teg ko nële parce que man kaay xeex moo ma gënal kaay lekk loolu ku ne xam na ko si man yaa may dégg bu baax. dinaa ko duma dinaa ko daan. macha allah ñu ngi lay bu baax. maa leen di jaajëfal xam nga. waaw di comme li ma lay wax rek. dafa am ñoo xamante ne. Fall waaw. salaamaaleykum mbooloo daa macha allah waa Parcelles kër Ngor fii ku tudd combat bi dëkk Parcelles dañ tuddee grand programme combat bi dëkk Parcelles. daanaka mën nañ ne muy 100 pour 100 Parcelles. ñu gis tey nga ñëw indi sa t-shirt. def ci ki nga xamante ne nii mooy sa mag nekkoon ak yow école di sa coach. ili ki nga xamante ne nii moom mooy a Mbour nekkoon sa géwél daan a gunge. ak sa jabar. Ibou Sadio def ndongoloo ci ginnaaw. Ibou Sadio Ibou Sadio. ki nga xamante ne nii nekkoon na sa booy tamit doon la gunge. naka lay def ci yow boo demee le 24 te gisoo waaw Fallou Ngom maa lay siyaar bu baax di wax question bi am solo Torop parce que nii ngay wax nii dañoo sori woon si man Abdou Mboub mi Diouf ku ne dafa xam sama diggante ak moom li may faral di wax nee naa man benn géwal laa am muy Abdou Mboub mi bi may ngénte suma taaw Sèvres dafa ñëw ki may tëggal pour affaire xarwe gi ma ne ko ma ne sama manga sama xarit nga mais Diouf mi mu ne ma ne ko mooy sama géwal te moom laay am ba keroog may dee wala moom muy dee moom mu jiitu ma ba tey moom mooy suma géwal keneen ku ñëwit Diouf mooy sama géwal ta lépp lu ma ko nar a terelee it as tàq magam mi ngi fi dama koy jaarale si moom Ibou Sadio nekk suma raq moom it am fu mu tolloon si man kon maa ngi leen di ñaanal bu baax Cheikh Thiam tamit xam nga ak suma jerbaat Pape kon maa ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen xaare leen àjjana bu baax a baax a baax a baax waaw di wax rek xam nga di sant ñi may jàppale bu baax a baax ku si mel ni Pape Gueye bu étage bu Madia la Pape sant bu baax Pape Gueye kenn la koo xamante ne day sonn si man di daj si man ay coono lépp lu ma bëgg lu nekk mu taxaw si Pape Gueye ak Serigne Diouf sëriñ Diouf maa ngi koy sant bu baax Mbaye Lo maa ngi koy sant bu baax Mansour loo maa ngi koy sant xam nga di sant suma rakk suma jarbaat baara moom xam nga rek kenn la si man fi mu toll nii xam nga mënuma wax sax si moom parce que gis coono yi mu daj si làmb ji ñoom xam nga daam kara ak suma boo yëpp ñoom Fayda ñoom Ousseynou Modou président fan club bi nuyoo bi teg naa ko si loxoom xam nga di nuyu suma booy nekk Italie ku si mel ni Alsaan ku si mel ni Lamine Naar Lamine maa ngi koy sant bu baax moom di ko gërëm ak Alsaan maa ni leen sant bu baax papa suma benn booy mi ngi ba Amérique papa saw maa ngi koy gërëm bu baax ak mafia sécage bi ku si mel ni Fallou Luuf borom Luuf yoole Garbaase suma rax Garbaase maa ngi koy nuy bu baax di nuyu Pape Thiam suma rax moom it ak wa eco de bi di nuyu Omar Dabala bu baakha baax. pakatas pakatas suma ma rax mi nga xamantene ne xam nga dafa tollu ci man fune wa waaw man dama tollu ci man fune man may mom mom moy man ku ci melni pa bi ku ci melni mbay maintien mang koy bege bu baax ku ci melni suma jigen mbisaan mbisaan suma jigen nga xamantene ne xam nga wa lu na lay dañ dox man ñom Anta Ndiaye xam nga ñom tiar suma dom Fatou Mbay waaw jibi ferati pa bi xam nga gor yombul tisi en tout cas daal su ma limee waaw dina dina du ma du matal rendez waaw rendez-vous le 24 incha allah rabbi xam nga li ci des ñu mottali ko